topp euh, ci ki yore kàddug njiit euh, NPP yi maanaam député Spock Passine euh, moom nag ci boppam daal dina yóbbu li nga xam ne rek moo di ab CDM ginnaaw moom nga xam ne sax mooy CD bu njëkk ci rek àtte bi dox ci diggante njiiti réew mi Adama Boro ak rek ñaari taskatu xibaar yu Voice newspaper yi ci rek ne ci ab publication maanaam de xibaar bu ñu rek wasaare woon wala sax fësal ci rek ne njiiti réew mi Adama Boro dafa rek daal di tànn ku ko rek wuutu ci fi nga xam ne rek mooy NPP. bi ci lang gi mu jiite moom Sidi Ndiaye nag ci ba muy daal di rek addu ci kanamu atte kaay ba foofee nag li mu daal di xam ne rek mooy boobulee xibaar ñu siiwal dafa rek daal di jur li nga xam ne rek moo di ak réero waaye itam ak jaxasoo euh, ci biir làng googee nag di NPP ginnaaw ba nga xamee ne yóbbu nañ loola moom Sidi Ndiaye ci boppam sax mooy euh, seede bu njëkk maanaam fees euh, witness ci rek boobulee atte dox ci diggante yéenekaay bii di Voice News ak itam nag njiiti réew mi ñu koy amalee nag ci attekaay boobu di Kanifing Magistrate Court ki nga xam ne sax mooy attekat bi di Magistrate Mbène Fall ñaari taskatu xibaar yooyu nag di Moussa Sirif ak Mamadou Justice Dabo ñoom nag ñi ngi taxaw wala sax tuuma yi nga xam ne wala topp yu leen di topp bokk na rek ci après caac maanaam daan bu ñu teg seen kaw mooy rek benn daan bu ñuy woowee rek euh, false publication and broadcasting maanaam rek daal di euh, siiw bind xibaar ak itam siiwal xibaar bu rek daal di wérul moom Sidi Ndiaye nag ci ba muy daal di rek addu euh, di daal di xam ne rek ne ci turu li nga xam ne rek moo di langue gi ñi xam ne daal euh, ñoom ñoo war di joxe xibaar foofee wala ñoo yëgg mbir mi euh, mooy rek Lamine Queen euh, jàmme moom mi nga xam ne rek moo responsible ngir rek di joxe xibaar yu mel noonu mu daal di xam ne daal ne euh, ci ñaar ñooñu daal euh, ci diggante moom ak Lamine Gueye Jammeh ku ci joxewul li nga xam ne rek moo di euh, xibaar ci NPP doon na du xibaar bu daal di wér moom si Sidi Ndiaye nag daal di xam ne rek ne ci ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru septembre maanaam 22 septembre ci boori juróomi waxtu ci ngoon maanaam 5 pm Moussa Sirif daf ko rek daal di kool ci rek lu jëm ci news boobee di ko xamal ne dafa am ñaar ci ñoo xam ne dañ bokk rek ci exécutif exécutif yi maanaam rek euh, top exécutif members ci languk NPP gi ñu ko rek daal xamal ne euh, njiiti réew mi Adama euh, Barrow dafa rek daal di tànn Mohamed Dia ngir rek mu daal di koy wuutu ci bopp lang gi di NPP ci nooy nag ki nga xam ne mooy Sidi Ndiaye ci li mu daal di xam ne rek ci bu muy daal di addu ci kanamu li nga xam ne rek moo di attekat bi lu mu rek daal di xamle mooy def ko rek daal di laajte kan mooy ñooñu maanaam turu ñi nga xam ne rek moo di exécutif members yooyu ngir rek mu daal ko koy wax waaye ci nooy yooyu nag ki nga xam ne mooy Sirif da waxut ko rek ci jëm ci loole waaye ci nooy nag moom mi nga xam ne mooy Serigne Ndiaye li mu ko daal di xamal rek ne eh, kii di Adama Boro ci boppam wax na ne 2026 moom mooy ne eh, moo di ab candidate teg ci itam xamal ko ne eh, amul benn interview boo xam ne rek grant na ko ko moom rek di Moussa Sirif nee nag ci noonu yi ki nga xam ne nag moo di Moussa Sirif li mu ko rek daal di xamal mooy dina ko daal di rek woowaat waaye nee na déggu ko benn yoon ci noonu nag ci la rek daal di gisee li nga xam ne rek moo di boobule public. communication mu nekk nag lu euh, métti ci bi mu ko gisee rek ci headline bi ne rek euh, kii di Adama euh, Barrow dafa rek tànn ku ko rek daal di wutu nee na ci rek jot message yu bëree bëri yoo xam ne ak message yu jaaxle la ak confuse ndax nag ci jógee ci fi nga xam ne rek moo ci langu NPP gi ndax nag tuuma yi nga xam ne teg nañ ko ci rek ne Adama Barrow dafa rek daal di wutu wala rek jël ki nga xam ne mooy Mouhamed ja mu dal di koy rek wutu ci langu googee moom ci boppam nag di si Sidi Ndiaye ci noonu nag nee na bi mu kii di euh, Moussa euh, Sirif bi mu ko rek daal di woowaatee ñuy waxtaanaat ci loolu ginnaaw ba nga xam ne publication bi am na euh, Mr Sirif nag daf ko rek daal di xamal ne dina Mr li mu daal di ne Mr Sirif moomee daal dina apologise ci rek ba mu ko koolaatee ci mbir amal li nga xam ne rek moo di ab rejoinder ngir rek ci boobule xibaar nga xam ne rek daal dina ko yëkkati waaye nag nee na Sidi ci boppam def ne ko loolu doyul ndax nag dafa war a di amal li nga xam ne rek mooy koy euh, ap euh, full apology maanaam rek euh, dal di jéggalu bu baax a baax ci rek biti ci nooy nag nee na Euh, kii di Sirif euh, Moussa euh, ba tey defut loole teg ci itam nag ne lu mu ko rek daal di xamal mooy su defee loolu lu jëm rek ci wàllu crédibilité am ak newspaper ci boppam nag loolu dafay doon loo xam ne dinañ ko tàmbalee laam laamee ne nag ci ni ko diggee woon ne dina apologise looyu daal daal di wut ko def boobulee atte nag daal dinañu ko acc ba fukki fan ci weeru décembre ci atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñeent ci la tubéer dippee rek cross examine examination ci rek Sidi Ndiaye ci kaddu yi nga xam ne nag daal dina ko garal foofu niki ay CD